kàddu doy na sëkk yóbbaale na lépp. li sama xel ak li sama xol lépp kàddu yu. mu ne kàddu yi li ci xelam ak li ci xolam lépp kàddu yóbbaale na ko. cant gi ak ngërëm li moom mu xajul ci làmmiñ bi. mu ne cant gi ak ngërëm li xajul ci làmmiñ bi. maa ngi gën a yeesal sama jaayante bu baax. mu ne mi ngi gën a yeesal jaayanteem bu baax. ci gàddu sëriñ Fallou yi. ci gàddu sëriñ Fallou Fall mii. di gën a feddali sama laxasaay di gën a feddali ay laxasaayam bu baax. ci ci fas ànd ak mu ne fas yéene ko gën a ànd ak yéen. sax dàkk ci liggéey bi. mu ne sax dàkk ci liggéey bi. sant bu baax a baax mu ne ñoo ngi ñoo ngi sant bu baax a baax a baax. kaddu yi yóbbaale na lépp. mu ne kaddu yi yóbbaale na lépp. dégg nañ ko bu baax a baax dégg nañ ko bu baax a baax. jërëjëf mu ne jërëjëf Fall. jërëjëf jërëjëf Fall. jërëjëf yi mu boole ci dëkk bi nag. mu ne kaddu yi nga boole ci dëkk bi nag. toll nañ ci bu baax. mu ne loolu loolu itam toll nañ ci bu baax a baax. dox ba agsi rek la. mu ne lu dox baax si rek la. loo xam ne tàmbali la. mu ne loo xam ne ab tàmbali la. tey day wéy di mu ne tey day wéy di wéy. loolu mooy sàmm xormay sëriñ mu ne loolu mooy sàmm xormay sëriñ bi. sàmmal ko xormay dëkk bi. sàmmal ko xormay dëkk bi. mu ne loolu doon ak tàmbali boo xam ne. mu ne fañ ko séentu. mu ne fañ ko séentu. dëkk bi. ci dëkk bi. dëkk bi daa am war mu ne dëkk bi daa am war may boppam. ndax kii ndax ndax ndax liggéey bu rëy bii fi nekk. ndax borom liggéey bu rëy bii fi nekk. kon eh, eh, eh, sàmm warma ji. mu ne kon sàmm warma ji. sàmmal ko warmay dëkk mooy sàmmal ko warmay dëkk bi. mooy gën a gën a gën a gën gën a jóg nag. mooy gën a jóg nag. gën a gën a jublu ci sa ci ci sàmmal ko lépp. mu ne gën a jublu ci sàmmal ko lépp. loolu. mu ne loolu. Eh, fañ ko séntu. fañ ko séntu. Eh, dëkk bi daa daa daa war a moom boppam. mu ne loolu fañ ko séntu dëkk bi daa war moom boppam. foofu la jëm. mu ne foofu la jëm. loolu ab tàmbali rek. la. mu ne waaye mën naa doon tàmbali bu mat sëkk. mu ne tàmbali boo xam ne day wéy di wéy ba mu àgg fa mu jëm mu ne fa mu jëm nag mu ne fii ci kaw suuf kenn amu fi loo xam ne la nga am sëriñ bi moo la ci gën a yey eh, mu ne dafa am réew mu ñuy wax Italie eh, capital ba di Rome kilifa diine fa nekk. mu ne kilifa diine ga nekk. fa mu nekk fa mu nekk. moom am na indépendance mu ne foofu mu nekk am na indépendance am total. mu ne léppam moo ko. état boppam la yor état euh, la mu am. mu ne te kooku la mu am. Euh, gën gën gënu mu ne gënu caa yey Serigne Touba. mu ne Serigne Touba kenn gën koo yey ci boromam. kon nag alhamdulilah Serigne Fallou ginnaaw foofu la dëkk bi jëm. mu ne kon alhamdulilah rabbil ginnaaw Serigne Fallou foofu la dëkk bi jëm. ndigal laa ngoog. ndigal laa ngoog. nañu ànd ak suñu xel. nañu ànd ak suñu xel. ànd ak suñu sago. sëñ Dame Soda mu ne Serigne Dame Soda mii waxoon na ko ko. ñi fi yàlla teg. mu ne ñi fi yàlla teg. ci saayir si ci saayir si. bu leen bu leen réeroo ak ñoom. bu leen réeroo ak ñoom. mu ne ànd leen ko ak ñoom. mu ne borom liggéey bu rëy bii. mu ne liggéey na liggéey ba mu agsi fii. xat dammul. deret tuuruwul. kon nag. li ñu bëgg. li ñu bëgg. rëy na lool rëy na waaye yomb na suñu borom. waaye yomb na suñu borom. yombalal na ko it. moom sëriñ bi moom sëriñ bi. jugaat bu baax. mu ne kon nañu jogaat bu baax. def suñu xel ci def suñu suñu xel yëpp ci dëkk mu ne def suñu xel yëpp ci dëkk bi. ndax borom dëkk bi. def ci suñu yitte def suñu def ci suñu yitte jëpp. ndax mu gën a sàmm. ndax dëkk bi gën a gën a sàmm. gën gën a set. gën a set. gën a gën a leer. gën a leer. gën a sell. gën a sell. mu ne suñu yitte jëpp nañ ko def ci dëkk bi. mu xam ne rek am. mu ne ñu xam ne lu jot rek am. kon jublu dëkk bi nag mooy jubloo war ma dëkk bi mu ne jot na suñu xel ak suñu yitte ak suñu jublu lépp nay dëkk bi rek mu ne loolu mooy saayir si bokkut ak baatin bi baatin bi moom mu ne bu suñu xel demee ci maam Cheikh rek mu ne bu suñu xel demee ci maam Cheikh Cheikh bi rek mu ne mu doy ñu ak soññ waaye saa si nag mu ne in fokk ñu yëngatu mu ne kon noonu la demee nañu gën a góorgóorlu lu baax eh, incha allah li ñu bëgg bëgg ko ngir sëriñ bi mu ne bëgg ko ngir sëriñ bi. bëgg ko ngir ngir ngir cëram bu rëy bii. mu ne bëgg ko ngir cëram bu rëy bii. cëram bu rëy bii nga xam ne fii ci ci àdduna la tàmbalee jëm ëllëg ga ñu jëm. mu ne cëram bu rëy bii nga xam ne fii ci àdduna la tàmbalee jëm ëllëg ga ñu jëm. mu ne nañ ci def suñu yitte. suñ kéem kàttan. dañu ko yóbbal fa ñu bëgg. kon alhamdulilahi rabil alamin eh, mu ne kàddu sëriñ fàllu yi ni mu ko waxee woon rek yóbbaale na lépp mu ne loolu rek la ci dolli mu ne ñoo ngi am mbégte mu rëy rëy mu ne ci seen teewaay bii mu ne mu sori ci moom lool mu ne sedd xolam guy mu ne soññu ci lu ñuy jariñ bégal ñu mu ne loolu ñoo ngi lay koy seeral bu baax mu ne lekk ci xolam mu ñu ko génne ci làmmiñam waaye yàlla mi ko def ci moom te defal leen ko mu ne moom xam na ko. mu ne borom liggéey bi nga xam ne. mu ne lu nekk moo tax mu def ko ci. mu ne lu nekk ñun moo tax mu def ko ci. mu ne borom liggéey bi xam na ko. kon nañu góorgóorlu baax. nañu góorgóorlu baax. te wéy rek. bu ñu gis dara. bu ñu gis dara. lu dul jëmmam jëm jëmmam ju tedd ji. lu dul jëmmam ju tedd ji rek. nay suñu nay nay nay nay nay suñu wommat. mu ne nay suñu wommat. di di di di di di di di di suñu soññ. di suñu soññ. mu ne nañ suñu jublu rek. mu ne ñu sax ca dàkk. mu ne ñu xam ne moo yor wammat gi. la ci am solo rek. na loos bi yolom. ban gën ban gën a ban gën koo mën a topp. bañ gën koo mën a topp bu baax a baax. jërëjëf Fall ni mu ko waxee woon rek mu ne li nekk ci xelam mënu koo yëkkati ay kàddoom jërëjëf a jërëjëf a sëñ Moussa